salaam salaam sama gars yi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di amati mbégte di ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di seen seen bi nga xamante ni moo di série sénégalais di fas yéene ñëwat yéen analyse série bi nga xamante nii moo di Babel série bi nag ku nekk xam ne jamono ji nag ni nga xamante moom la amee bës neex ko lool jamono juñ toll nii waye nak yow mi dal video bi bu ne abonné goo maa lay ñaan nga abonné tay activé cloche bi ndax bu len fat timi di like video yi ndax lool dina si am solo bu baaxa baax ci liggéey bi waye bu len fat di ñu may cœur ci li nga xamanteni ni di commentaire yi ndax lool yomb na lool lool lool lool série bi nak tay bala ñoy ñew commentaire yi daw si suuf video bi bu video bi di daw parce que parfois day dañ ci gis yeen euh, commentaire yo xamanteni ni yu ama am am am solo la ki nag mom di wax ne Euh, ku gëm ne nabu ak ibnu ñoo neexal siri bi laalal sem ku nekk xam na ni ibnu ak ki nga xamante ni moo di nu mu tuddati sax comment dirais encore xale bu jigéen bu lakkale boobu rek bambi ibnu dafa bëgg a tàkkee ki nga xamante ni moo di bambi wala dafa tàkkee ki nga xamante ni moo di bambi mais ibnu à chaque fois bu tëllee rek ci li nga xamante ni moo di séquence yi muy suy rek maanaam mënoo ñàkk reetaan foofu noonu quoi gis ngeen la fois passée ak fleur yi nga xamante ni indi na ko ci këru ki nga xamante ni moo di tantay bambi ñew fekk ñu dax ki nga xamanteni moo di Bambi gis ngeen réaction bu mu def di naran di naran di nara jooy jooy jooy jooy foofu noonu quoi mais nabu tamit kenn moom nabu ñëw sëy si génn kër goo xamanteni ni waa këru caamel la nabu ani soos bëccëg ani teg soos añ bëccëg di teg ay firir bëccëg loolu kan fan ngeen ko mos a gisee fii si réew mi di Sénégal nekkuñ nekkuñ Europe ñu ngi Sénégal nabu wax la communication est vrai important dans couple xool leen fa ak xalil li mu wax mooy dëgg maanaam communication dafa nekk loo xamante ni dafa am solo trop si couple parce que ñaari couple ñaari nit bu ñuy say yaakaar naa ne il faut ñuy communiquer pour bañ di réeroo communication bu amul rek réeroo day am moo xam ci euh, ñaar ñuy dencante moo xam si ñaari wayjur ak doom moo xam moo xam moo xam ñaar nit bu ñuy bokkee nekk il faut ñoom ñaar ñuy communiquer parce que communication bu amul seen diggante rek mooy waral ay réero yu baree bare baree bëri bu fekkee ne dafa am loo xamante ni da ko war a da koo xam mu sa soxna war ko yëg da nga ko ko a yëgal parce que yéen ñaar warul am dara loo ni dañ ko war a nëbbante ku si nekk dafa war a am confiance sa morom ku nekk nëbbal sa morom ay secret mais bu fekkee né nak yow sa borom kër bu lo waxé secret nga dem yébané ko moy tax parfois yenn communication di ñak ci li nga xamante ni moo di ci yenn couple té communication ñak ci couple lolé baxul ben yoon no no kon couple nak nañuy waxtaan nañuy tok di waxtaan. ki nee na ku yërem xalil son na torop lu mu juggé dal ci lénen parce que goor la parce que goor la té tamit manam sey bu mu dugg ni ñoom ñaan ñep ay xalé lañu mën nañ ni te sëyu xale ku nekk xam na ne ay jafe-jafe neen day am si biir ay jafe-jafe ñaari xale yi bu ñuy sëy ay jafe-jafe day am si biir parce que ku jigéen ki bu génnee dina dem fréquenté ay xale yi ay moromam yoo xamante ni amuñu borom kër wala mu fréquenté sax ñoo xamante ne am na ay borom kër mais la ñuy dund seen biir néegu sëy moom xëy na dundut ko wala ñu ngi influencer ci yeen yo xamanteni xeyna sax gisut ko fi nga xamanteni mo ci borom kërëm légui bu ñibsé ci kër gi nak loolu da koy bëgg yak ki nga xamanteni mo di borom kër gi légui borom kër gi nak bu fekkee na mom ant ak mat dëgg dëgg dëgg dëgg pour ñom ñaar pour ñu xulo wala pour ñu nekk ci ay jafé jafé day yomb sëriñ Diop sëriñ Diop mom nee ku bëgg ku ku gëm ni xadi caam ak tidiane ñoy mujjé <laughs> manam ñom ñaar ñoy mujjé sey parce que actuellement ñom ñaar ku ci nekk dafa am ciofel ci sa morom mais ñom ñaar bëgguñ ko feeñal parce que xadi am lu mbeugel ci nga xamanteni modi tidiane mais bëggut ko wax xaritam bëggut ko wax mbokam nga xamanteni modi tidiane timit tamit instant yi xam na ne sax mom mi dafa bëgg dafa bëgg xari mais momit it bëggut koo wax bëggut ko bëggut ko wax yaayam bëggut ko feñal te mbeugel dafa nekk lo xamanteni ci si biir xol la nekk te lolu ñu naan maam lu fess ci xol rek feñ ci jëm lolu ñu naan ab ab paanu ndox la panu ndox boo ko ba mu fess bu fessé rek lo ci gëna soti maam ndox mi day gëna turu lolé nak la mbeugel mel ci biir xol maanaam mënoo ko nëbb force su day feeñ moo xam mu feeñ si ki nga xamante ni moom nga ko moom nga ko seexal moo xam mu feeñ si keneen mais ala kulli haal moom mbëggeel boo ko bëggee nit dëgg te muy dëgg force su day feeñ mais ki nga xamante ni ñu ñëw kon suñu jàngatu bopp ki nga xamante ni moo di Omar Thiam takk na ki nga xamante ni moo di Fifi Fifi nag dafa war a sëy si yaayam da ko war a muur pour mu ñëw sëy si mais instant yi Omar Thiam amul fi nga xamante ni moo di néeg si kër papam wala kër maamam parce que papam actuellement nii ba léegi mu ngi kër papam loolee nag mën nañ ne ba léegi ñu ngi koy gis fi nga xamante ni moo di Sénégal mu nekk nag mbir moo xamante ni mu doy doy doy waar la bu fekkee ne yow da nekk ponk la ngóor yàlla dëgg nga nekk sa kër papa bu fekkee ne yow yaa ngi liggéey yaakaar ne war ngaa mën a fexe amee foo xamante ni fa ngay fa nga fa ngay dëkk surtout nag boo nekkee ne sa bu fekkee ne sa papa dafa njaboote lool lool lool parce que kii nga xamante ni moo di bëkkër yi loolu moo moo ko moo ko dal parce que way jurum dafa njaboote te moom mu nekk li nga xamante ni moo di taaw si kër gi ba léegi mënul am foo xamante ni fa la dëkk ak ki nga xamante ni moo di euh, soxnaam wala fa lay dëkk ki nga xamante ni moo di njabootam actuellement ni ki nga xamante ni moo di doomam war a takk soxna amul fenn fu mu ko war a wàcce ndax yaakaar ki nga xamante ni moo di imnu bu takkee bam bi génn moom mu jël néegi ki nga ni moo di imnu boobee est-ce que imnu bu takkee soxna su tax du far reste foofu noonu sa kër ga loolu tamit li nga xamante ni moo di moo di moo di ab la ndax boobu dellu siwaatee kon ki nga xamante ni nag moo di Omar mi bootul dana waaye di bu baax a baax a baax mais gis nañ yaayam moom it nara lijjanti lu ñu mel mais xët xët du mënta lijjanti dara te yaayam ku nekk xam ne dafa bëri xët xët trop yi nga xamante ni moo di sa sa Sadikh sa Sadikh ak Jojo ñoom ñaar ba léegi euh, mën nañ ne problème bi jeexagul actuellement ni jojo dafa bëgg dugg ci problème ki nga xamanteni ni di Bambi to lolu yaakar naa ne baxul baaxul si couple bi baxul baxul seen digënté ñam ñaar. am problème bi ñu am rek da lay na doy sek sek da lay na wara doy parce que actuellement ni jojo bu nek xamne dafa ñaanon baat ki nga xamanteni ni moo di Sadikh ah, donte nag kër gi xawon na yëngu bu baaxa baaxa ba waye problème Bambi yaakar naa ni ñew ñëw ko waat ci ci li ñu mel mais est-ce que. sadiq mii sax est-ce que kii kon joojo mii sax dafa ëmb parce que actuellement nii day wax ki nga xamante ni moo di sadiq da koy gëmloo ne daa ëmb mais man ba léegi gëmu ma ne moom mii dafa ëmb ki ma yaakaar ne moo ëmb kay mooy ki nga xamante ni moo di Fabrice wax leen ma seen xalaat si li nga xamante ni moo di commentaire yi après ñu wéyal waxtaan bi